bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin ibnu abdallah wa ala wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñuy seetaan gannaaw bu ñu sante yàlla suñ boroom subhaanahu wa taala julli ci sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi leen di nuyu ak fu ngeen man di nekk diñu seetaan di am mbégte ci teew gi ngeen teew fii mboolem si yi fi teew yëpp ak organes yi ñoo ngi kontaan am kontaan bu kawe kawe eh, tey nag ñu fas yéene am ak yéen benn waxtaan eh, bu gàtt gàtt rek bu tënk incha allah ci actualité yi xew ci réew mi eh, man mi wax ak yéen nag maa ngi tudd Cheikh Abdou Khoudous Faye imam ci Daarul Mooti Eh, waaye maa ngi fii ci HLM Grand Yoff eh, ñëpp ñëpp ñu bëree bëri xam nañ ko kon ñu doon def présentation bi di sant sénégalais yëpp ci réew mi ak ci bitim réew. transport bi. gis nañ ni fan yi passé coow li bëri woon na. Mm. taroon na circulation bi amoon na problème mais gis nañ ne démb état bi mujj na am gouvernement mujj na am solution ak euh, euh, transporteurs yi. Mm. est-ce que gisuloo ne loolu waxtaanoon bu yàgg bu trouver solution. Mm. gënuloon. comme ça su su euh, euh, euh, citoyen yi bañ am problème comme ni ñu ko dundee woon ñaari ñaari fan yi waaw loolu de moom liñ ciy wax rek mooy dañoo jàpp ne Mansour Faye foofu dañ koy tàmbale ci moom parce que Mansour Faye dañoo jàpp ne ñun ci suñu xalaat ak li ñuy gis dafa tële ci liñ ko dénk parce que poste bi mu yor dañoo jàpp ne xam-xamam jëm ci loolu moo tax toujours toujours bi fi nekkee ba léegi Euh, euh, problème yi def ciy bëri lu caa génn ci wàllu transport bi rek la mais euh, gis ngeen bi bi mu yore ministère beeg ministère beeg léegi accident yi gis ngeen ni mu bëree te ba léegi ci solution kon nag loolu ak yi ak ak toujours ñuy joxe ay délai ne dañu war a intégrer terre bi wala dañu war a intégrer leneen fommaat ko. bu ngeen bu ngeen bàyyee xel barki dem waxoon nañ ne dañ ko war a intégrer le 24 léegi fombaan nañ ko ba le 27 te dara leeragu ci kon nag nit moom boo koy jox euh, poste bu ko ko jox ngir dafa maa jege ngir def sama mbokk la ngir loolu waaye da nga koy jox euh, ngir xam-xamam màcc na jëm ci wàllu boobu kon Mansour Faye moom dañuy jàpp ne dafa tële te li koy wane ne dafa tële bërki bu dafa def benn discours bu doy waar boo xam ne bi mu dajee ak euh, transporteurs yi ba génn dafa wax yoo xam ne waxu violence la mel ne kuy tëkkoo nit ñi te nag wax dëgg yàlla nit ñi nag moom booy wax da wax ak ñoom ci njekk ak teraanga parce que moom moo leen euh, bi mu génnee dafa wax ne euh, dañuy génne euh, gendarme yi ak police bi pour ñi nga xam ne ñi ngi attaqué yeneen oto yi nga xam ne ñi ngi daw ñu ñu ñu ñu dal ci seen kaw te loolu du waxu kilifa du waxu responsable dafa nit da ngay da communication dafa am solo ci li ngay waxe kon man Faye ni mu waxee dañ koy ñaawlu bu baax a baax te ñun sax dañoo jàpp ne Mansour Faye dafa war a démissionner ci poste bi waaw poste bi ñu ko dénk daf ci war a démissionner dafa war a génn ci gouvernement bi bu dee laaj maire beneen maire nag mën na dem laaj maire liggéeyu maire peut-être moo gën a yomb mais ministre dafa diis te jàpp nañ ne li mu nekk rakku Marème Faye Sall peut-être moo tax ñu jox ko poste bi kon man Mansour Faye ñoo ngi koy wax ne ko di wax président ne ko na démissionné bu démissionné wut na ko jëlee ci poste bi nu mu gën a gaawee parce que Sénégalais yëpp mere nañ ko ci discours bi mu def barki démb euh, te it ba tey solution amagul parce que gars yi wax nañ ne euh, bàyyi nañ euh, grève bi mais ni ma déggee ñu waxe mooy déggooguñ ci dara loo xam ne luñ mën a teg loxo parce que maa ngi dégg ñu ne yi ñu wax ak ñoom buñ ko deful fekk un mois dañuy delluwaat ci grève bi kon nag ba tey solution amagul kon nañu waxtaan ak nit ñi parce que sénégalais yi ñoo ciy sonn ñu war a faju ji faju jiwuñ ñu war a liggéey liggéeyuñ fan yi dara doxul ci réew mi barki de bu gis ngeen hôpitaux yi ñu waroon a def euh, euh, euh, kii analyse yi ak ñu waroon def opération yi biñ laajee nee nañ presque ñëwuñu parce que Sénégal ñaam am oto bariwul te it marché yi tamit kasaalika wax nañ ne mujj na sax ndugg amatu fa ñi war a dem nduggi marché mënatuñoo ndugg place yëpp mujj na tëj économie bi daal lépp taxaw ñetti fan yi ci réew mi kon nag loolu lu ñuy ñaawlu la di wax président yu mel nii bu amatee moom ci boppam na jël responsabilité am dalal gaa yi waxtaan ak ñoom xool li ñu wax ñoom tamit li ci mën a nekk ndax am na lu ñu wax loo xam ne mënut a nekk nit booy laaj tamit da laaj li mën a nekk euh, li ci mën a nekk nañ ko def li ci mënut a nekk ñu bàyyi ko te xam ne sénégalais yi nag wax dëgg yàlla dañoo sonn te sénégalais yi ñoom rek ñoo ci ñoo ciy bëgg dee parce que gars yi ci gouvernement bi yépp kenn ku ne yaa ngi oto foo bëgg a dem fay dem yor nañ seen oto nañu sóoraale sénégalais yi yu mel nii bu amatee kon euh, loo gis waxtaan moo koy mooy mooy li tax solution mën am mais xët-xët ak xëccoonte lu tax solution am kon daal wàllu transport bi loolu lañ ci wax nañ ci waxtaan euh, xool euh, mbir yi nu gën a rafete ñu jàppale Sénégal yi parce que Sénégal yi daal sonn nañu ci loolu. yi am ci wàllu transport mu Mm-hmm. salaamaaleykum aleykum salaam waaw dama dégg nga wax si si biir wax que ne tey ki nga xam ne kii mooy jëriñ bi ñu dénk wàllum transport que ne dafa tële ba tax na ma jàpp ne est-ce que yow jàppoo que ne mm-hmm. affaire bi nekkul si ñi nga xam ne ñu ñooy njiit mais si acteurs yi nga xam ne yi ñoom ñoo yor maanaam liggéey bi ci wàllu transport mm-hmm. parce que ñu bari sax ñu ngi dem ba koy naatable naan accident yu bari yeeg yu demee noonu. or que moom en tant que jëwriñ. du moom mooy ki kii moom il moo mooy fasal di mooy faral di def yi nga xam ne yi mooy est-ce que yi nga xam ne bii chauffeur yi seen wàllu bopp mm. ak oto yu vétuste yi nga xam ne yi vraiment dañ leen war a génne si circulation bi mm. est-ce jii moo indi problème yooyu waaw li nga wax loolu lu am solo la muy euh, chauffeur yi nga xam ne ñoo yor oto yi di ko dawal parce que loolu tamit yàgg nañ koo wax ci réew mi da gis chauffeur boo xam ne euh, day jël ay nit yóbbu leen fu mel ne Tamba wala mu yóbbu leen kaw lax bu àggee du noppalu ndax day yàkkamtee indi yeneen client pour xaalis bi muy encaisse nga xam ne bu àggee du noppalu du nelaw du def dara wala deux heures de temps lay noppalu jëlaat yeneen client ñëwaat te e, mbiru e, e, transport dañ ko war a organiser parce que doomu aadama dafa foor lool bakkanu doomu aadama moom dama ko jëlale ni fi ko yàlla teg ak ni ko yàlla fonke kon booy jëlee nit di leen yóbbu war ngaa sóoraale loolu bu baax oto bu nekk dafa war am ñaari safoor chauffeur bi bu demee tey bu subaa beneen chauffeur mooy liggéey chauffeur bi liggéey tey dafa war a noppalu bu subaa ñu indi beneen chauffeur bu bees mais benn chauffeur bi toujours mooy liggéey journée bi mu war ci dem ñaari yoon ci benn dëkk ñëwaat loolu euh, bokk na ci liy indi accident yu bëri yi da ngay gis tamit ñu jël xale bu ndaw a ndaw euh, boo xam ne amagul benn responsabilité jox ko oto bu mag te oto nit ki dafa war am yenn at yoo xam ne mooy tax mu mën a dawal oto bi parce que nit ki dana xam ne ay nit la yëpp dana respecté nit ñi nekk ci am nit yim sëf loolu tamit lu ci am solo la maanaam yar beeg teggin bi gis nañ ne manqué na ci wàllu googu waaye nag mën na ne lu ci bëri dañ koy delloowaat rek ba ba tey ci gouvernement bi parce que loolu lépp nit ki moom toujours li ñu xool mooy seen am-am gouvernement bi nag moo war a xool lan moo baax ci sénégalais yi parce que loolu gouvernement bi moo ci war a taxaw te ay sart yoo xam ne. oto buy def transport bu nekk da war a jaar ci sart yooyu boo ci jaarul ñu arrêté sa oto wala ñu nangu sa euh, carte grise parce que dafa am oto yoo xam ne màggat na màggataay boo xam ne warutul daw ci tali bi te oto yooyu màggat dañuy def def dañuy dem def visite technique visite li muy jariñ mooy ñu xool oto bi ba xam organe yëpp normal na pneu yi baax na euh, moteur bi kazalika euh, yëpp lu war a nekk ci oto mi ngi léegi nag da ngay gis oto bu màggat a màggat dem def visite technique ñu bàyyi ko mu jàll parce que euh, affaire guerre yooyu ñuy def ci biir moo yàq liggéey bi da gis koo xam day ñëw otom baaxul mais bu joxee dara wala mu dugal dara ñu bàyyi ko otom normal oto bu màggat nag bu defee soog bi day metti moo waral oto yi bu ñu defee soog nga gis oto bi day tisaaroo moxoñoo ba kenn du xam nu mel moo waral bakkan yi rot bëri te war loolu nit ñi ñu ngi ciy bëgg a ngi ciy bëgg sonn Sénégal bu ñu xoolee bokk na ci dëkk yi gën a ëpp lu ñuy def soog ak dëkk yi ëpp lu ñuy ci tali bi Sénégal bokk na ji fi ne te loolu fi ne war nañ ko weesu kon loolu euh, gouvernement bi na ci bàyyiwaale xel bu baax a baax ci loolu. ñu dem ci deuxième point bi. Mhm. mooy mbiru Gaston Mbengue. Mhm. gis nañ ni fan yii paase. Mhm. jotoon na yëkkati ay kaddu jëmale ko ci njabootu jaay. mu wax ci ay kaddu yoo xamante ne. Euh, ñu bëri rafetlu ñu ko ci réew mi. Euh, dañ bëggoon xam rek yow ban jàngat nga def ci. ci kaddu gas gaston Mbengue mu yëkkati jëme ko ci Fallou waaw loolu moom mën naa ne ñëpp dëgg ñoo ko déggandoo muy kaddu yoo xam ne mën naa ne amul benn sénégalais bu ko rafetlu defe naa gaston mi wax kàddu yi sax biir këram rafetlu wuñ kaddu yi biir këram ci boppam ak njabootam mënuñoo rafetlu kaddu yi parce que kàddu yi day kaddu yu garaaw a garaaw yoo xam ne mën na taal am réew kaddu yooyu nag kenn waru koo bàyyi mu jàll. waru woon a doy sax ci Gaston génn rek ne jéggalu naa euh, ñu bàyyi noonu mu jàll justice daf ko war a wóolu dal ci kawam même bu fekkente ne euh, condamné wuñ ko it ñu ne ko lii bu mu amati ba Sénégal yëpp yëg na lii moom lu garaw a garaw la pour bu ëllëgee keneen bañ ko defati parce que doomu aadama dafa foor suñ borom dafa fonk doomu aadama bërki dem rek euh, laaj nañ ma ci ma wax ko ma ne suñ borom dafa wax ci alxuraan ne wala xadd karram naa bani aadama wa xamal naahum a fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kasirin mimman xalaqnaa tafdilan yàlla dafa wax ne dafa teral doomu aadama dafa fonk doomu aadama bi muy wax nag néewul dafa fonk jullit néewul dafa fonk chrétien néewul dafa fonk yéefar néewul dafa fonk tubaab néewul dafa fonk naar doomu aadama la wax te doomu aadama yépp ñoo bokk fu ñu jugee amul benn boo xam ne man nga ne kii yaa ko gën xeet wala yaa ko gën askan wala yaa ko gën lii parce que ñëpp rek ci aadama lañ jugee ci aadama mi ngi bàyyi ko ci suuf Euh, bu ngeen seetloo iblis euh, bi ko suñ borom waxee na sujjuutal euh, aadama suñ borom iblis daf ko wax ne ko ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin man danga maa bind ci sawara moom nga bind ko ci benn suuf kon daf ko xeeb xeeb googu mu ko xeeb nag moo koy yóbbee iblis tey mu dëkk sawara nga xam iblis bokk na ci ñi gënoon a jege suñ borom bokk na ci ñi gënoon a am daraja ci diggante ci ci suñ borom jaamu yàlla ba jaamu ko ci fànn yëpp wax na iblis jaamu na yàlla fépp te iblis fi ne mooy ki gën a bon ci ci ci ñu yàlla bind te li ko waral lenn dong la muy dafa xeeb doomu aadama Gaston nag kàddoom yi buñ ci delloo day mel ni dafa xeeb ay nit parce que loolu kàddu yi xeebaatee la te gis nga bàkkaar bi gën a garaaw bi gën a rëy mooy xeeb nit ndax euh, euh, euh, benn boroom xam-xam di kilifa di suñu référence ñun ñëpp di Sëriñ Tuubaa dafa wax ci benn téere ne wa lu man yanzuru fawqahu lkilaab fal kalbu xayrun minhu duna al irtiyaab ne képp koo xam ne dangaa xool ab xaj rek ba xeeb ko maanaam xaj yëpp ñoo la gën doon loo doon doon nit xaj yi des yëpp ñoo la gën comme ci xaj la ko misaal dama jëlee la nag doomu aadama doomu aadama dafa foor suñ borom daf ko fonk daf ko suturaal lu mu mën a mel rek ak lu mu mën a kii lu mu mën a mel ak ku mën a doon bul ko xeeb bul yaakaar ne yaa ko gën parce que kenn gënul kenn tamit ku dul yonent bi alayhi salaatu Euh, gën a ngëneel moom mi ngi takku rek ci ki gën a ragal yàlla inna akramakum indallahi attaqaakum loolu loolu loolu la alxuraan wax kon nag Bart euh, Barthélemy li ko Gaston wax kaddu yi la kaddu yu ñaaw a ñaaw la boddikonte xeet la te loolu président it cee jug ndax gis na na bëri na ci réew mi du Gaston rek moo fi wax yu mel noonu am na ñeneen ñu fi wax diggante olof ak pël yu mel noonu te loolu mën naa ne diggante 2012 ak léegi lañ ko commencé gis fii ci réew mi kon loolu mën naa taal am réew bëri na réew yoo xam ne loolu moo ko taal kon nañ ci jug Gaston Mbengue moom vraiment li muy wax wax yu mel noonu bëri na ñoo ngi koy ñaawlu di ko wax ne ko mag la mag moom boo de nit bu demee ba romb 60 ans jëm kaw euh, am ay ay sët wax dëgg yàlla am na yenn kàddu yoo xam ne warutoo cee eh, eh, di ko jibal muy génn ci sa kàddu di génn ci sa gémmiñ parce que xale yu ndaw ñoo lay seetaan xale yu ndaw it ñooy jàpp ne kàddu yi nga wax garaawul euh, te eh, bi mu waxee wax jiit it euh, dafa at insisté waat ne ne wax delluwu ci ginnaaw sénégalais yi ñoo ko teg pression mu doog a génn euh, tuub tuub googu jàpp naa ne gëmu ko ba tey parce que nit day tuub loo xam ne gëmu ko euh, diggante ba borom sa nit sa sa sa borom da wax loo xam ne gëmoo ko ñàkk pexe moo la ci dugal waaye Gaston dañoo jàpp ne waratu la benn média waratu ko éviter benn télévision waratu ko éviter muy waxati wax yu mel noonu waaw. si wàllu média boobu nga wax fi nga est-ce que tey euh, bu ñu situé responsabilité est-ce que tey média boobu nga xam ne moo diffusé message boobu est-ce que moom amu si par de responsabilité d'autant plus que ba mu koy wax du woon direct. ña mhm. doon monté est-ce que amuñu woon possibilité maanaam dindi extrait boobu noonu maanaam fi mu waxee loolu. Mhm. après ñu continuer seen ci waaw xam nga euh, média boobu defe naa ne wal fajiri la moom mën nañ ko tudd directement euh, bu ko defee wal fajiri ñoom euh, dañoo nekk média boo xam ne. Euh, ñu ëpp ñun ñëpp dañoo yàgg rafetlu euh, seen liggéey parce que ki nga xam ne moo ko sanc muy Sidy Lamine Niass daan xeexal réew mi daan bañ euh, ba diggante xeet daan bañ ko ñuy néewal doole ba tax na télé bi sax dafa daan wax ne ñi ñuy néewal doole ñoo moom télé bi nga xam ne booy seet da daan dem ci àll bi ñaxtu yi nit ñi jàmbat nga xam ne am nay télévision yoo xam ne duñ ko génne moom daf ko daan génne bi muy dund wax dëgg yàlla mu def ci réew mi liggéey boo xam ne ñëpp rafetlu nañ ko kon nag bu demee ba jóge fii Walfadjri yi euh, war nañoo góorgóorlu ci loolu Sidy Lamine Niass euh, defoon fandoon ko ñu bañ koo gàkkal parce que wax yi euh, bërki dëmb ji nga xam ne ñoom génne nañ ko ñëpp ñaawlu nañ ko te loolu média waru ko génne su doon émission direct sax dañ ko war a dagg bu ko waxee ci sens muy direct dañ ko war a arrêté émission bi rawatina muy loo xam ne dañ ko enregistré tegaat ko loolu moom ñëpp ñaawlu nañ ko te ñoom it gis naa ne jéggalu nañ waaye beneen yoon nañu bàyyi xel ci lu mel noonu parce que Sénégal moom dañuy da ngay def lu garaaw garaaw ba ñëpp gisandoo ko nga jéggalu baatu jéggalu googu nag lañu war a xoolaat bu baax a baax euh, jéggalu gi gis naa ne daal mm, dafa yomb ndax senegal yi boo ne jéggalu naa rek ñu bàyyi mu jàll te loolu bu ëllëgee keneen mën na ko defaat kon Walfadjri loolu am nañ ci responsabilité bu rëy rëy rëy rëy média bi it nañu xool ñi ñi ñi ñi ñi dalal ci seen télé waaw ak ak bu ñu passé foofu dañuy dem directement ci élection locale yi parce que wax ji tamit élection locale yi ñoo ko andi woon. Mhm. Ah, donc bu ñu waxee ci élection locale yi gis nañ ni euh, acteurs yaa ngi ci terrain bi euh, di dugg fu nekk waaye violence bi. Mhm. mi ngi commencé violence bi mi ngi commencé. dugg mhm. ci seen campagne bi. te campagne bi commencé gul. coow li bëri na. donc kilifa diine yi mel ni yéen. yan kaddu nga nga mën a dënk acteurs yi ak Euh, seen seen seen seen jëf seen seen seen jëf bi te campagne bi sax dooragul waaw dañoo gis ne jamono yi yëpp mën naa ne euh, euh, fitna yi dafa bëri ci réew mi mën naa ne weer wi wala lu ko ëpp coow li bëri na opposition baa ngi wax gouvernement baa ngi wax ba président bi wax jëm wax bi mu demee France tamit ñëpp ñaawlu nañ ko kon fitna moom dafa doon loo xam ne kenn waru koo yecce ab dëkk wala ci am réew te local yi wax dëgg yàlla Sénégal yàgg naa dem élection te élection yi daawul am benn jafe-jafe dañ daan dem ñu wootee kay gañe gañe bu ñu noppee ñu delluwaat ci liggéey bi euh, mën naa ne dimanche bi bu ñu wootee lundi bi ñëpp dañuy dem liggéey kon nag mën naa ne euh, fitna bi mi tàmbalee ci gaa yi nga xam ne dugal nañ seeni liste ñu rejeté ko parce que élection moom waruñoo rejeté kenn. parce que ñëpp tamit defe naa ne kayit yi ñu yor jaar na yoon parce que am nañ expérience yàgg nañoo dem ci élection waaye ñii dugal nga récité ne listu yi baaxul wax dëgg yàlla loolu moom du luñ mën a rafet parce que bu fekkente ne yow moom euh, wóolu nga sa bopp euh, démocratie bàyyil ñëpp dem bu fekkee ab dëkk ñu fay laaj ñëpp fukki nit lañ wala wala wala lu ëpp na ñëpp ñëw bu ñëpp ñëwee euh, askan wi ñooy xool koñ tànn ba ne kii la ñu jàpp ne kii la waaye kenn koo rejeté listam rek maam du moom nga tooñ waaye askan wi amoon ci moom yaakaar ba ba ba bëgg mu dem jiital leen seen gox pour mën leen liggéeyal askan woowu nga tooñ kon nag loolu ñi ñaan préfet yi ak ñi nga xam ne service yi jëm ci wàllu googu nañ bàyyi liste yëpp dem liste yi ñu woon sax na leen indiwaat ñu bokk bu ko defee bu ñu bokkee askan wi ñooy tànn. te euh, loolu euh, bokk na ci liñ ci gën a euh, ñaaw lu nga xam ne danañ ci taxaw tuuti mooy ki nga xam ne moom la ñuy wax Jibril Ngom mm, li def ñëpp nañ koo ñaawlu mooy mandataire yu Yewwi Askan Wi nga xam ne dafa jël liste gars yi war koo déposé daw ak moom loo xam ne man man maa ngi koy mës a dégg ci àdduna bi waaw waxuma la Sénégal ay maa ngi maa ngi mës a gis lu man léegi nag bi ñu toggee ab diir ñi naan fan la nekk dafa feebar dafa kii dafa kii ñu xëy xëy gis mu toog ak président ji pale bi muy lu garaaw a garaaw loo xam ne kenn mu sa gis lu mel noonu président tamit foofu def na fa loo xam ne moom mënatu koo rectifier moom waaw dalal gi mu dalal Jibril Ngom ci pale bi loolu moom moom moom moom eh, eh, gàkkal na deram eh, loo xam ne daal vraiment man day dama cee rus waaw parce que ku mel ni Jibril Ngom euh, ñu mën ko tuddee Samba booy wax dëgg yàlla ndax euh, ku jëlee fi jàmbur dem Samba booy dañ lay tuddee président ni mu toll nga xam ne yow yaa yilif réew mi yëpp 17 millions yëpp nga xëy dalal ku mel noonu ak euh, président euh, liggéeyam ak li koy xaar ci réew mi yëpp toogoo ku dul Jibril Ngom ñu gis benn enveloppe bu tege ci wet gi euh, enveloppe boobu ñëpp na xaalis la mu moo ko dugal ci palais bi te palais boo fay dugg kenn ku ne xam ne lépp loo yor dañ koy daa am foofu fu muy des foofu moom wax dëgg yàlla président daal la moom amul lu ma koy dara lu ma koy wax benn kàddu parce que mbiram sax bu doon loolu du ma ci wax waaye ndax dafa am loo xam ne bu ko nit ki defee rek maanaam jëfi doye doye di joo xam ne daal jëru sax ñu ciy taxaw duñ am jotul di wax ci moom waaye président nag moom wax dëgg yàlla li mu def ñun ñëpp dañ koo bokk ñaawlu eh, di wax ne leen di wax président daal ne ko moom la fi yàlla teg fii ba vingt 2024 na organiser élection yu jaar yoon askan wi tànn ki ñu bëgg a tànn ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jàll ci leneen loolu daal loolu lay wax ci élection locale yi foofu ci ci euh, waaw waaw. Euh, ba tey si injustice. Mhm. li nga wax affaire yooyu noonu. Euh, naka nga gisee rôle Macky Sall si li nga xam te ni moom moo di moom euh, ay ay kiiwam ay naataango politique am Euh, comme kaw euh, Barthélémy Dias ci élection locale yi. Mhm. parce que ñu gis ni que moom mu ngi jox mu ngi bëgg a xëccu euh, mairie bu Dakar rek ñu gis après ñu ñëwaat andiwaat dossier boo xamante ne nii. Mhm. tëjoon nañ ko plus mhm. naka nga gisee loolu façon bu muy bu goree tànk gars waaw loolu tamit ba tey dañ koy duñ ko mën a rafetlu parce que Barthélémy Dias 2011 la woon defe naa ne bu ma juumul boobu Ablaye Wade fi nekkoon boobu. Euh, Macky Sall mi ngi laaj réew mi jotagul jotagul ci woon bi nga xamee ne loolu am na parce que ay nervi ñoo déplacé wu tamit ñoo fekk si ko fi mu nekk te jàpp naa ne boobu ñoom ñi ngi naan da leen yónni waan ab leetar wala waaye leetar bu la ko yónnee ci nit est-ce que noonu nga ko war a yóbboo ànd ak nit ànd ak euh, mbooloo ñu ñoo yor ay arme ne leetar la ñuy indi leetar kay ko responsable kenn nit rek mën na koo yóbbu yor otoom ñëw gaare wala moo xam da ngay dugg jotee wala lu ma doon waaye leetar moom duñ ko yóbboo noonu loolu moom wax dëgg yàlla du wax joo xam ne euh, wax ju dëgër la daal ju tegu fenn li ci des mooy la ci am am na ca moom mii fi nekk tey muy président taxawoon na défendre ko euh, dossier bi tamit defe tëjoon nañ ci Barthélémy Dias ay weeri weer yoo xam ne tëdd na ci kaso bi waaw six mois yoo xam ne tëddoon na ko ba gën léegi nag boobaak léegi waxuñ ci defuñ ci dara bàyyi bañ ne moom mooy euh, candidat yeewi askan wi yeewi askan wi léegi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ne léegi dañ koy convoqué waat léegi euh, ginnaaw bi sax dégg naa ñenn di lay ne Barthélemy Dias yéegoon na ne dañ koy convoqué nangam nangam waaye lu ci mën a xew sénégalais moom seen xel moom ñaaw na ci ba pare ci jëmmi convocation bi ak date bi mu am léegi euh, euh, bi mu ñu première bi gis ngeen li ci am dañ ko fomm ba mercredi bi passé ñu fommaat ko ba le 2 mars loolu lépp di doon loo xam ne xel da ciy gën a ñaaw di wax euh, président ne ko président Macky Sall ne ko daal injustice bii muy def daal wax dëgg yàlla wala yoon di ko def xëy na moo ko moo leen ko sant wala fu mu mën a jóge daal ñun ñoo ngi koy ñaawlu te rafetluñ ko parce que deux 2008 bi nga xamee ne président Ablaye Wade mi ngi ko doon indil fitna ñun ñëpp dañoo jógoon jàppale ko kenn àndu ci woon moom jàppale ko loolu sax bokk na ci li tax mu jot ci réew mi parce que sénégalais bëgguñu ko ñuy sonal bëgguñu ko ñuy xeex kon nag moom yàlla def na jot nañ ci réew mi 2012 ñaari mandat la waxoon euh, mi ngi ci darñal yi local locale ci lañ nekk nii na fexe organiser élection yu te bàyyi ñi nga xam ne ñoo bëgg a laaj comme ni ma ko waxee woon léegi ñu leen di woo di leen jàbbanteloo ku ci bëgg a génn doxantu ci mbedd mi wala nga génn def say mbir tamit ñu bàyyi la nga def ko ndax ñi féete ci gouvernement bi ñu ngi koy def te kenn waxu leen dara. Ah. Euh, naka nga gisee taxawaay Yewwi Askan Wi. Mhm. parce que aussi euh, Macky euh, génne woon nañ ci charte non violence. pour mhm. gars yi signé ko mais ñu gis ni que président Ousmane Sonko signé ko ak ñeneen ñi bokk ci coalition Yewwi Askan aussi ñoom ñu rallié wu ci décision boobu li tax ma la ko moy en tant que koo xamante ni nii nitu diine nga. waa mm. koo xamante ni aussi euh, dëkkam soxal na ko. Mm. Euh, ku ci mel ni oustaz euh, nañ koo laaj ci loolu. Mm. moom dafa dafa ànd ak le président Ousmane Sonko lu mu def te yow aussi dañ lay dañ lay laaj par rapport ak lu mu def moom dëgg yàlla ñun moom dañoo jàpp ne violence moom du lu ñuy signé ci kayit wala loolu mooy mooy tax dëkk bi du am Euh, ci nit ki li muy fas ci xolam euh, ak yéene bi maam am mm, loolu jàpp nañ ne euh, loolu loolu moo ci am solo waaye day kii na signé kii du signé loolu moom wax dëgg yàlla ñun moom moom bokkuñu ci kuréel googu te jàpp nañ ne sax kuréel googu mën naa ne liggéey bi mu def daal mën naa dafa des parce que bu léeg-léeg da ngay gis ñu bund xataal nit ñu ñu ñu def nit lu garaaw doo leen gis ñu génn wax waaye toog ba élection yi jege des lu mat un mois wala lu ko lu ko lu ko lu ko ëpp tuuti ñu génn yor seen benn kayit danañ ko signé loolu moom wax dëgg yàlla euh, Ousmane Sonko ak ñi mu àndal liñ def am nañ ci droit parce que nañ signé ñàkk signé moom ñu jàpp na ne loolu mooy ñàkk indi violence li koy indi daal mooy euh, comme ni ko gars yi waxee rek ki nga xam ne moo yor doole ji muy guvernement bi na tee doole ji te xam ne nit kenn du ko jaay doole dellu kenn di ko xeexee nguur da koy da nga ciy liggéeyal nit ñi waaye bu ko jël def ko àll mu xeex ci Euh, opposition bi tamit ñoom it euh, ñu góor góorlu ci def seen rôle parce que opposition kenn ko ne xam na ne mooy euh, bu waree wax dara wala mu war a ñaawlu dara gën def ko parce que loolu mënut a ñàkk ci réew loolu moom ala kulli àll réew moo dem ci àdduna bi am na fa démocratie la lu mu bëgg wax dañ ko war a wax ba loo ba bañ a wax nag luy dëkk bi waaye lu ñu bëgg a wax mën nañ ko wax waaye gouvernement bi tamit wax dëgg yàlla nañu dal te bàyyi fitnaal bi ñu fitnaal nit ñi waaye ñi nga xam ne daal ñoo yor euh, kayit googu pour bëgg gaay yi ko daal mën naa nañu dal moom mën nañoo bu ma sañoon daal ñu ñu ñu arrêté loolu waaw. sànq yaa ngi wax ci euh, daanaka ñoo xaw a méngoo muy kilifa ak si moom mhm. ñu gis ni euh, ki leen takkaloon ci mbir mi mhm. mhm. ko moom ñib mu ñibbi te euh, topp yi ko toppee woon moom moo gën a grave sax li ñu kilifa ak si moom dèjà loolu nañ ci mën a waaw loolu tamit wax dëgg yàlla mën naa ne euh, dossier bi xooluñu ko xooluñu la ci nekk dëgg-dëgg ca biir waaye parce que Thierno Diallo bi nga xam ne bàyyi nañ ko moom li ñuy ñaawlu ci moom rek mooy film gi mu film euh, gars yi parce que wax ak nit ngeen nekk foo xam ne yéen ñaar képp yéen a fa nekk ngeen di waxante la ngeen di waxante parce que nit moom ku mën a doon la ngay def ca biir ak ci biti yëpp bu génnee rek ñëpp xeeb la nit ku nekk am na looy def loo xam ne boo sañoon kenn du ko gis yàlla moo binde noonu doomu te yàlla dafa suturaal doomu kon nag bu fekkee da ngay wax nit nga film ko ba jël film boobu génne ko. Euh, li nga war a njëkk def mooy yow mi def loolu dañ laa war a teg ay daan yu méttee métti ba boo ëllëgee keneen du ko def parce que loolu lu garaaw a garaaw la loo xam ne bu yaatoo ci réew mi kenn dootu wóolu kenn parce que loolu day indi yow euh, dootoo woolu sa xarit dootoo wóolu kenn loolu lim yàqu moo bëri lim def noonu lu garaw a garaaw la loo xam ne moom sa xabu ko leneen li ci topp nag mooy euh, bu fekkente ne passeport yee ñu ca wax ak diplomate yaag yooyu Euh, euh, man nag loolu na ma ko gisee ci film ba wax nañ ne dafa am luñ ca dagg loo xam ne ñëwul parce que kii génn moom bu ko neexee mën naa dagg xam yéen ay journaliste ngeen xam ngeen loolu mën naa dagg monte ko ba mel ne loolu kese lañ wax fekk am na ko jiitu ñu génne loolu yoon nag war naa gën a xóotal dossier bi xool la ca biir la nekk ca biir dëgg-dëgg euh, ñu doo ko kii bu ko defee tamit ñu teg ko ci yoon waaw na Diallo su fekkente ne moom Mm, peut-être mbir mi mm, ñoo ko bokk def ndax moom tamit xam na ne loolu mu doon def dëli la donte moo ko filma pare mu koy sàkku ci ñoom kon moom jàpp naa ne xam nga lu tax ñu génne ko waaye waaye jàpp naa ne teel na kilifa tamit moom it euh, nañ moom daal mbir mi nañ ko teg ci yoon man du ma ne nañ kii lii nañ kii lii du ma condamné kenn waaye mbir moom daal war nañ ko gën a xoolaat gën ko teg ci yoon di ci profité di waxaale député yi nga xam ne muy ñaari député yi nga xam ne waxoon nañ ne ñoom it euh, passeport yi bëree bëri lañ jël joxe ko loolu tamit fan yi damaa déggatul kenn wax ci may ñaan tamit yoon loolu mu xóotal liggéey bi bu ko defee eh, assemblée nationale def na li mu waroon def ci loolu eh, léegi ñoom rek la ñuy diglu léegi nañ xootalaat dossier boobu député yi ñu topp ko bañ a ca kaw a kaw parce que loolu moom lu garaaw garaaw garaaw lu moo gën a garaaw sax li ñoom kilifa def muy député yi waaw mënoon ah. euh, mm-hmm. euh, gis nañ ne fan yi yëkkati woon naa ay kàddu yoo xamante ni. Mhm. Euh, waa kër xalifa euh, euh, Tiwaawan bi. Mhm. rafetlu wuñu ko. Mhm. ba ñu génne sax def conférence de presse wax ji wax ji wax yu bëri. ba ñu am nañ am ñu ko menacé woon sax. en tant que nit diine ban gis ban jàngaat nga def ci sotti Iran bi ak ñi ko doon tontu aussi. waaw Iran moom liñ ko yàgg a xamee mooy di jàngale. Euh, euh, diine jàngalin boo xam ne xëy na moom moo ko njëkk indi fii ci ci réew mi ba tax na ñëpp koy seetaan mag ak gone ñëpp koy seetaan di ko bàyyi xel ba tax na télé télévision bi mu nekk gisoo dañ ko fa jox temps boo xam ne chaque jour dañ koy gis muy génn kon euh, dañuy rafetlu liggéeyam bu baax a baax li nga xam ne am na nag ci digganteem ak gars yi mën naa ne sax ñi génn gisuma ci porte-parole xalif bi gisuma ci kenn koo xam ne ku sës ci xalif bi man ne daal gis naa ñeneen génn ay ustaas génn toog tontu ko ba wax ju ñaaw a ñaaw parce que am na ñoo xam ne àgg nañ ci menacé ko ba àgg kaddu yoo xam ne mën na ne jege ne sax ay saaga te loolu nag wax dëgg yàlla dañ koy ñaawlu lu ñuy rafetlu parce que Iran li mu wax mën naa ne jàkka yi nga xam ne tëj nañ ko da koo rafetlu wut te eh, am na ci ñoo xam ne waxuñu waaye rafetlu wuñ ko ndax eh, xëy na xalifa bi bu fekkente ne tëñ na jàkka yi xëy na feebar bi moo tax mu mu tëj ko. Eh, waaye nag Iran dawit eh, xëy na li wax am na ci droit eh, ndax nit nag moom amul benn doomu aadama ak lu mu kawe kawe kawe ak ak fu la nit ñi lu mu kawe kawe foo xam ne danga nit ñi danañ la jommale nit war laa wax dëgg te du la ko wax ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy suñu référence ñun ñëpp te moo gën képp ko yàlla bind da daan wax dara boo waxee dara Sidna Omar daf ko daan wax ne ko wax ji ndax ci yow la jóge wala ci suñ borom bu ne ci suñu borom la jógee mu ne wax ji de kon dañ koy jëfe rek kenn amul loo ciy wax def rek su fekkee yenente bi moo ko wax nag mu ne kon nañ ko teg ci taabal ji waxtaane ko ba déggoo ci ci kàddu ñu dokkoo kii kon nag eh, eh, Seydina Omar parce que wax wax lii yenente bi wax lii keroog bu yàlla wàcci eh, aaya bi Seydina Omar la àndal kon nag loolu lépp ab jàngale la boo xam ne kilifa diine yi war nañ cee roy te xam ne nit boo demee ba jommale sa bopp ne kenn war ngaa kenn warul laa wax dëgg da def erreur parce que nit bu nekk ban ngay juum te da ngay juum parce que doomu aadama nga kon nag Iran Ndao man li mu wax dal jàpp naa ne ni ma ko waxee barki dem xëy na Iran Ndao waxam dafa dafa xaw a diis buy wax nag euh, dafa dafa xaw am xatar ba nga xam ne wax ji xëy na ni mu ko bëggoon a waxee wax ji mën naa diis ci ñi koy déglu waaye nag man jàpp naa ne li wax daal gisuma ci dara lu garaaw loo xam ne jaroon na nit ñi di jub di def conférence de presse di wax yu ñaaw te ni tamit bu defee lu mel noonu da ngay déplacé wu comme ni mu ko waxee ñëw toog ak moom waxtaan ak moom. laaj ko lu tax mu wax ji demee nii bu fekkente ne mën nañ koo fexe ba ba mu togg xalif bi loolu mu bëgg wax mu àggee ko xalif bi parce que am na ci loo xam ne boo ko dee wax kilifa du ci public nga koy waxee mën ngaa dem ba ci moom xuma nag def na loolu am mën ngaa dem ba ci moom nga toogoo moom nga ne ko lii kat ñu defe ko nii ak nii ak nii ak nii waaye kilifa tamit boo koy wax xale sax boo koy wax am na noo koy waxee du la dégg damaa jëlee kilifa kon kon kon gars yi maa ngi ñaawlu seen conférence de presse bi Iran it maa ngi koy wax ne ko kàddoom na ko gën a xoolaat bu baax a baax donte dëgg lay wax it mu xool ni mu koy waxee loolu lu am solo la. voilà xanaa foofu noonu. moo hmm. parce que est-ce que tamit jàppuñu ne moom Iran Ndao maanaam dafa am benn rapprochement ak benn kilifa diine bu nekk Tiwaawan. Hmm. moo gën a tax te ñun yooyu di am parce que boo xoolee. Hmm. comme ni ñu koy faral di waxee si arab al ishaaratu takfi. te moom bi muy wax waxam yooyu noonu. vraiment tuddul benn nit. Mhm. waaye na ay fait. Mhm. ba pare nit mhm. tey jii est-ce que du maanaam rapprochement boobu noonu kilifa diine googu nekk biir Tiwaawan moo tax tey ñoo ñuy waaw loolu loolu moom xam naa ne luñ seetlu la ci ci mën naa ne euh, euh, ñaari at yi wala ñetti at yi yëpp ne Iran Ndao moom am na ñu mu amal jafe-jafe ci biir Tiwaawan loolu moom am na loolu fees feeñ na ci discours am parce que ay jamono ci ginnaaw. am na bi mu waxee am na ay kilifa diine yu bokk foofu ci Tiwaawan yoo xam ne génnoon nañ euh, daal ci kawam loolu maa ngi koy fàttaliku loolu yàggul matugul ñeenti weer wala juróom-benn weer ba Iran daw tontuwaat leen ñu waxante wax yu kii xam naa ne daal am na jafe-jafe bu nekk ci seen biir boo xam ne euh, dañ koy dañ dañ daa dem ba ëpp loxo dem ba àgg ci média bi loolu bokk na ci ni Iran di waxee nii boo ko déggee da xam ne am na comme amal jafe-jafe te loolu it fes na boo duggee ci. Eh, eh, YouTube bi da gis eh, kàddu yooyu mu mu mu waxante woon ak ñooñu waaye lu ci am solo daal loolu moom yàgg na ci ci ab dëkk waaye Iran Ndao daal moom li ñu ci mën a xam daal mooy liñ gis mu koy def mooy lu baax la nit day am jafe-jafe mu ñëw indi ko ci télé bi teg ko ci taabal ji fexe ba nit ñooñu nit kooku ñu tëjoon ci kaso bi ñu génn ko wala fexe ba nit kooku amoon jafe-jafe kër mu am kër loolu moom yàgg na koo def te barki dem bi dégg naa gars yi ne yaa ndaw deful dara te waawoon du yarkat waaye lu lu daara yi euh, si sëñ Aboubacar si wax na ne moom moo yor daara ja euh, sëñ Abdou Al Amin moo ko tegoon ci loxoom kooku nag wax dëgg yàlla du ko ndaw ci Tiwaawan kon kooku kooku mën na kilifa la foofu. question bu mujj bi mooy cinquième point bi mooy mooy Daaru mhm. xam nañ kilifa nga Daaru Muxti mhm. donc euh, mën ñu seet waxtaan ak yow te duñ la laaj. noo gisee doxalinu mbir mi euh, foofu Darou Mouhty. waaw Darou Mouhty ñoo ngi nuyu xalifa bu baax di sëñ Basiru Antaña di nuyu mbooleem kilifa yëpp daaru nag moom Darou Mouhty dëkk la boo xam ne dëkk la bu siiw ci wàllu politique. parce que booy seet dëkk bu toll ne dëkk bu boo xam ne rëyul noonu bu toll ne daaru amandoo woon ñaari ministre Abdoulaye Wade defoon na ko fi euh, loolu defe naa ne bëriwul ci li muy am ci réew mi. région bu région yi sax ñaari benn ministre la am wala yooyu waaye Daaru Muxti nag dëkk dëkk la boo xam ne du département sax ñu jox ko ñaari euh, ministre ci jamono yàble waaye du loolu kon moo tax mu àgg fi mu àgg ci wàllu politique waaye ñun dañoo seetlu ne euh, suñu dëkk boobu di Daaru Muxti dafa sooxe lool ci wàllu euh, maanaam économie surtout économie wàllu koom-koom économie dañoo seetlu ne dëkk ba wax dëgg yàlla dafa demul fenn ndax boo demee ci Daaru Mooti la fa nekkoon ci année quatre-vingt yi ba léegi moo fa nekk man ne na hôpital ba fa nekkoon ba tey moo fa nekk te tali ya fa nekkoon ba tey moo fa nekk tali yi nga xam ne président Abdou Diouf moo ko fa defoon kon loolu defe naa ne lu ñu ñaawlu la ñun ñi dëkk ci biir dëkk boobu di Daaru Mooti ñaari ministre nekkoon nañ fa gisuñu wax dëgg yàlla lu am solo lañ mën a teg bët ne lii ñii ñoo ko fi def lu am solo yokkuñu fa hôpital yokkuñu fa ay tali yokkuñu fa ay forage defuñu fa daal dara lu nit ñi mën a teg seen bët ne lii ñi ñëw fa def kon nag dëkk ba dafa laaj ndawi dëkk ba jub xool kan lañuy denk dëkk ba de di di di wax président tamit mu jàppale daaru te bu dee jàppale daaru mu xool fi muy jaar bay jàppale daaru bu nit ñëw rek ne moo fi nekkal daaru nga jël xaalis jox ko déedéet ab na xool ministre bi nga xam ne euh, wala ministre yëpp yi nga xam ne loolu dana leen concerné ñu defar daaru mooti parce que loolu ñu ngi koy sàkku bu baax baax parce parce que soxla nañ ko daaru lim soxla dafa bari fi ne daaru ku war a faju ji da ngay génn dem Louga wala nga dem Touba ci dëkk bu toll daaru mooti loolu wax dëgg yàlla ñoo ngi koy ñaawlu hôpital ba ba fa nekk amul ay matériel amul ay médecins yu baax euh, waaye nag lépp rek mi ngi euh, départ ci cuune ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñoo fa nekkoon ba léegi ak ña fa nekk daaru nag ñun dañoo bëggatul koo xam ne day ñëw ngir manipuler nit ñi ngir bu élection jotee nga ñëw jege nit ñi jël ay saaku ceeb jox leen jël ay ay xaalis yoo xam ne doo xam kenn xamul fu mu jógee ñëw seddale ko nit ñi ngir nit ñi wote la mel ne kuy jënd nit ñi yi nañ yeewu ci loolu nit ñi duñ ay xar duñ ay bëy yu jënd nit dafa dafa fort te ki nga xam ne day ñëw indil la ñaari jinni wala wala wala wala mu indil la saaku ceeb nga nga fal ko fal fi nga ko fal mu def nga faa defaat juróomi at juróomi at yooyu dootoo ko dégg dootoo ko gis nga continuer nekk ci jafe-jafe loolu mu lay jox doy la sax dépasse benn bis loolu nit ñi nañ ci yow bu baax a baax Daaru Muxti daal en tout cas ñun suñu dëkk ba euh, euh, ñun nag politique wuñ nekkuñ ci benn parti jàppalewuñ kenn ñi ngi fiñ nakk rek waaye dëkk ba nag dafa soxla ñu xool ku tegu ci yoon nit ku jub euh, ñu sensé wax dëgg yàlla def changement boo xam ne jàpp na ne dana doxal dëkk ba kon nag ñi ngi wax maire yi nga xam ne ñi nga xam ne ñi ngi laaj maire yi candidat yi nañ wax seen programme parce que ñëw rek naan maay kii maay kii kii sama mbokk la loolu doyut indil programme bu leer nañ boo xam ne lii moom nga fas yéenee def ginnaaw buñ la falee ci maire bi bu bu fekkente ne fal nañ la li nga waxoon ne dañ nga ko def boo ko deful fekk cinq ans ñu fali la teg fa keneen waaye daal nañu manipuler nit ñi di leen jox xaalis di leen kii daal loolu ëpp na lool ci daaru te ñu ngi koy ñaawlu di wax na ñëpp jub Eh, ku ngeen ku ngeen di woteel di ko jox seen carte di ngeen xam kan la koo xam ne jub na dana dana dana xaalis bi fi war a dugg dana fa dugg dana liggéeyal daaru waaye ña fa nekkoon daal gisuma wax dëgg yàlla dara luñ liggéey loo xam ne ah man de gisuma ko teguma ci bët te defe naa ne waa yëpp yi tamit nañ ne wax dëgg yàlla gisuñu dara daal loo xam ne eh, luñ mën a teg seen bët la loo xam ne gars yi fi nekkoon liggéey nañ ko fa eh, kon nag nañ xool ñoom ñi fi nekkoon nañ wax seen bilan bu ko defee bilan bi su fekkee mën na leen a falaat ci bilan boobu ñu ñu ñu ñu xam su fekkente ne ñu leen cee falaat ñu fal keneen waaye ba léegi daal gisaguma bilan boo xam ne danañ ko fi nekkoon moo ko fi def kon loolu ñoo ngi koy wax waa dëkk bépp ñu jug taxaw xam fi ci teg seen tànk xam ke ñu woteel xam ke ñu loolu daal laa ci doon wax ci wàllu